ay ca caaga ngeen di am foofu biram kunkun wala biisale eh, eh. caaka ñëw na fii ci Mbour lambu Yaxya Diop Yékini ak Fada Production tey di samedi le 26 juin 2021 eh caaka ngi noonu konkal bi a biisale eh caaka ngi noonu dox na e doole ordinateur asiba hujan mege mbuur ya la sini ga siba hujan dégg ordinateur ni jega men ordinateur asiba hujan mege mbuur waaw Wow, wow doon ngi noonu la ndeysaan wax tey waaw man lan lay wax na koy ordi bi ordi ordi yàlla silik yàlla silik waaw li doole la wala ordi liggéey na boo xoolee pour bu ko indi woon te drapeau chef de l'état bi ak waaw waaw cey ordi o yàlla sinik e machine ne a daag njooy na daagooxa kenn Toubacouta eh buuru Saloum eh mu ne la moom mooy borom jamono Toubacouta doomu ngay xoox aca Touba ngi noonu ba tey si teewaatee eh, eh. bi buuru Saalum borom jamono ay ca Toné ngi noonu Tony bu kër mbir Tony day poids lourd la ñëw xale waa ngi noonu dafa mën a bëre dafa gëm boppam Tony eh drapeau Sénégal la laal waaw waaw bi hee Abdoulaye Wilane Ndoye a ngi noonu doomu Kayar Lébu Ndoye Mali Morong Ndoye cey libi waaw kooku mooy Birino Birino bu Bargny Tony mooy arrière noonu ay ca gaay si yaa ko ngeen di am foofu bu Mbour waaw waaw fopona sooma moyoon ma guux dengane dengane na fuda afine kada rika ndiga fada njel jon ale ponkal ke ala cade ey fes lakas na sibane waaw waaw adufin aha tokum cey njom cuupelalum waaw waaw Ibu Njaay éé oboli

tey bi lamb Ibou Ndiaye yegg fekk fi Libidor fekk fi ordinateur jëlal day yengal day yengal waaw hey hey doomu Diop yor baa ngi noonu ñangal bi hey général Malika yegsi na hey Kopati la laal Kopati la laal le zenem yi fawul le ca Kopati bala hey jëlal loolu général Kopati la laal waaw waaw boy Malika sukk noonu ndeysaan du ko defal débat dé grand frère grand frère ba waaw waaw zene Zene Zene Zene général bu Malika. borom combat bu avorté bi ndeysaan. mu ñëw kal ko si loolu fii la mburu mi di xoy xoyame. Zene. général ma. le gauche magique. waaw waaw moytul ma. ma loolu. danaa ko tey waa lu fekk fi ordinateur. fekk fi Thiaka Faye. fekk fi Toubacouta. fekk fi Libidor. fekk fi Ibou Ndiaye Obali. ndeysaan fekk fi nga xam mooy Déthié bu Mbour. Siaka Fall. ndeysaan nee la boobu poids day saf. ci wa eh ma lamb jaa ngay saf. njëljoon bu Mbour. wa wa wa nga Ngor. eh la brasserie de Kër Mbir. ñoom ñaar laa leen naa maa wax lii. Eh. loolu revanche la. waaw. nee naa la Fata production mënta organiser muy naqari. non non. day neex. te xam lamb bala. waaw waaw nee naa ko kuy dundal lamb ak ki koy du benn. non non wax lu mënuñoo yem. Ah, ah. lamb ju toll nii amul parrain. Eh. xam nga ni loolu ki koy def dundeewul lamb da dundal. dafa leer. nga laaj. waaw waaw mystique. oh oh ku sama ginnaaw ma ñëw. ku nekk sama de. Dame Sarr waaw kooku Dame ma lu ma lu ma lu ma lu ma ma <laughs> lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma wax gaay yi. <laughs> waaw mais waaw làmb yaa ngi toj de poids lourd yaa ngi dugg si. dugg nee naa leen dugg si poids lourd dàq suba la dëgg si. Malika mooy dugg noonu ndaanaan bi nga xam def ne ci làmb. Eh, eh. waaw mais li a yi fi ñu jëm. jaayee jëm waay aw fee nga gis am ay. <laughs> Ah. <laughs> nee naa noonu deful lu dul xool lu mu pirate ndeysaan. ndeysaan nee bul ma tooñ. lu mu pirate da lay xool. góor ba daw na tey champion bi doomu Malika baa ngi noonu.